si nga biir ndar maa ngi rakk ñëpp far dañuy teral gan dara du ndara leen ak jàmm te rek leen nee naa leen jàmm ngeen fi de dañoo xaw a sikk gan yomb naa mu ñël eh ganu ndar gan yomb naa mu eh ganu ndar yi de yomb nañu ganu ndar yi gan yomb naa mu eh Euh, bébé euh, yow yow li may rey ci yow dafa bëri. lan moo lay rey laa dama bëgg xam lan moo lay si man. Euh, xam nga yow da yor loo xamante ni nii dafa nekk ci yow te xamoo ko. lan la feeling feeling. feeling nga jigéen. jigéen feeling. Ah. waaye jigéen teint noir. du neex ni la mel. bébé bis boo xeesalee ma bala. non du ma xeesal boo ay xeesal moom bis boo juumee bébé ba laal ko. ci sa ma ko te man dama fas yéene loo bëgg ma dox si. xam nga leen am. dama fas sama jabar ndax yow fassiyene tak tak ngay dagu ci kër nax rek ah yow xam nga yow xam nga yow nga dox rek won ma ginaaw say ans di di di di di di di di dem gauche di dem droit waxa kañ ñamay may takk ñamay tak may takk bébé na xolal lu gis rek ndànk ndànk lañ koy def déedéet yaani da nga jabar do tak? dama lay tak? kañ ñamay tak? ci kàttun yalla ak mbaaxam du genn ci juroomi fan ma tak la billahi indi la ci kër gi la ko suñu wa kër yow yëg leel. sama mag bu góor ak ñëpp. yëg leel yëg su ma su ma duggee connexion tamit mën naa def. mais bébé nag sa ceeb sa ceebu suul namm naa ko. yow ma rek. lëg ma suul keroog. takk ma. boo takkee dama la ci yokkal ba njëkk. waaye wax mi sa joge gi foo ko jëlee ci sa iya, yaay wala ci sa tante wala dama ko namp sama ñoom maam ñoo ma eh kon yow sa yaay jonga ma na de su dee da ngaa namp da ngaa lii da nga koo namp sa yaay jonga ma na sama yaay boo ko bëggee xool ma ah maa ngi yow ak sa yaay ki kee teg teg teg man tee ma laa ba sa yaay kon ay da xam nga ki <laughs> donc ma gaaw lu xal date bi. mais bébé je t'aime. moi aussi je t'aime. bébé I love you. bébé I love you. waaw sa lan la. yow laa ko tuddee. yaa ko moom. njaxas bi. yaa. waaw ah, comment vous allez. huit heures. moom naa la. comment tu vas. yaa ngi sama mag yaa ngi

waaw lii de la ñuy wax moom vrai love story. léegi comme maa ngi doon wàcc mu sonn je suis épuisé. bàyyi ma dugg def baaf après waxtaan ci. gérer leen waxtaan leen. allez tout à l'heure. mu jaag nii. mu di sama ñoom yaay ak sama ñoom maam ñu ànd sa yeeg bel goog ñooñu ñoo des. yéen a yéen a bokk benn sang. ñoo bokk ndey ak sang sang sang deret bi yéen a ko bokk. ñoo bokk ndey ak Lala? No, da, da, da, da, da. <laughs> dangeen soo may takk moo yore organisation bi yëpp moo ko yor billaahi moo may sax ndax moom dafa nekk sama mag ba pare nekk sama lépp mooy ah, dem ci jàkk yi may lépp moo koy def ah ma ñëw foo dem ma bëgg a dem kër ga rek xam waaw doo toog garaaw xanaa kon nga ñëwaat si kanam waaw waaw di nga ñëwaat no xaar yéen a No sang nga ne sang ñoo bokk ndey ak bàyyi deret ji circulé ci yow mooy circulé. xanaa dañoo nduroo. non yaa ko daal. Ah. baax na naa la xaar dégg. waaw baax na dafa ñàng li moo tax bëgguma ko présenté kenn du gis na rek kii sax kii mbaa dina ma takkati sax am ah, Cisco bëgguma ay mbiram man mais grave ba tey mën naa esoti wax ko ñoom Batoore ñoom bébé ñooñu.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 adequate. waaw sër maa ngi doon waxtaan ak moom sax ndeysaan mu ne ma magam nga yéen bokk ndey ak baay loolu ma doon wax affaire wax na ma ci yow lu rafet sax ndeysaan da ngaa gëj kër ga ma laa gëj gis trop baax maa ngi dem. ah foo xam lu ma bëgg. nga wax ma mot à lan nga doon wax sa sœur lan nga digg sama sœur yow. ah ah dara sax <laughs> xam naa dañ doon waxtaan rek ci biir waxtaan ñuy waxtaan waxtaan waxtaane àddina ma naan ko ndeysaan xam naa ne <laughs> yàlla defoon ba ma takk la ñaareel affaire yooyu ah, ci yooyu lañ ñëwoon di wax rek waxtaan waxtaane àddina rek. affaire yooyu xam naa ci biir waxtaan bi maa ngi kafa moom naan ko si <laughs> ma lii woon ba takk la ñaareel eh, ndeysaan loolu daal lañ doon waxtaan noonu rek. juróom fukk ak juróom maanaam mooy ñaata ci français cinquante cinq cinquante cinq ans et tu te permets dugg ci kër di wax lu dul dëgg hmm? ku la bàyyi nga jóge sa kër ñëw sama kër di waxtaan ak sama sœur et puis en plus tu dis que ni da nga divorcé da nga fase sa jabar pour takk sama sœur noonu la demee amoo jabar yow la moo tax nga wax loolu sama sœur yow à ton nga am jabar joo xam ne elle est bëgg sëy mën sëy bañalu la dara tu te permets génn ci àll bi dem di wax lu dul dëgg di def nag su dul noonu sa jabar fàtki ne sama xarit la hmm? elle est comme pour man heure bu amee lu ko naqari ci man lay ñëw jooy ma conseiller ko lu baax

bon, bon conseil. Vas-y, demain. Hmm? N'importe quoi. Hey, maa ngi nekk ñëpp far dañuy teral gan dara du tàkku saanu dara leen ak jàmm te rek leen nee naa leen jàmm de dañoo xaw a gan yomb naa mu ñël ganu ndar gan yomb naa mu ñël ganu ndar yi de yomb nañu